home choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ca Mbour Tivaouane Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité
jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp vingt deux heures ngeen ci ànd ak al oustaz abdallah baba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mu ngi ko bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoo nag yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine
عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليم alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi nii topp ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana ak docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahullahu waraa tey ci àllarba ji juróom benn fan ci weeru juillet tolloog juróom ñaari fan ci weeru tabaski ñu leen di ziar fu ngeen ñu mën a toppee moo xam ci biir Sénégal la wala ci biir Afrique wala ci Europe ci Amérique ci Asie ci yeneen continent yi nekk ci àdduna bi ngeen ñuy topp ci rajo leeral bi ci Louga wala keppaar ga ca Kaolack wala salaam ba ca Mbacké wala leeral ba ca Podor wala leeral ba ca Ziguinchor wala ci yeneen yoon yi nga xam ni yeneen ni ciy topp moo xam ci YouTube bi la ci Facebook bi la ci WhatsApp bi la ci yeneen yépp rek ñaan yàlla subhanahu wa taala ci weeru tëdd yi dafa ñu tawfiq defal leen ko defal ko cheikhana sàmm ko wéeral ko ñuy gën di mën di jëriñoo ci xam-xamam ñaan yépp nga xam ni amul benn semaine boo xam ni ay ñaan yu bari du ñëw ci ñuy laaj ñaan yooyu yëpp yal na ko yàlla nangu te ñëpp xol lañ koy ñaane kon yéen ñëpp da ngeen jàpp ne seen i ñaan egsi na dandul mën di jottali ñaan yi saa su nekk rek waaye jàpp leen ni ñaan yi egsi na yal na ko yàlla nangu incha allah kon cheikh bi ñu jox la nga ibbee ñu doogay dugg ci lenn li fi rot ci laaj إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu déglu kon noo ngi desewaat ànd ak yéen ci jotaay bi nu bokk ni jotaayu alfatawa di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal leen tawfiq te defal leen ko Cheikh Abdallah mbokk yooyu di yónnee seeni ñaan ak seeni nuyoo ak seeni sargal ak seeni ndokkeel ñoo ngi leen di delloo ak njukkal di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangu suñuy ñaan te boole nu lépp loo xam ne xeetu yiw la sàmmal ñu suñuy fas fas sàmmal ñu suñ diine sàmmal ñu suñu cofeel gi nga xam ne yàlla rek moo ko lal sàmmal ñu suñu réew dafa ñu fi jàmm kon Cheikh Abdallah bismillah jërëjëf cheikhana waffaqakum allah barakallahu fikum cheikh bi kii nee na dafa dégg ci benn waay bu ñuy wax ñu ab ustaaz la wala yu demee noonu muy Sénégal ñi nga xam ni dimanche la ñuy tabaski samedi mooy seen bisu arafa waaw ndax nee na bisu arafa du bis ba nit ñi di taxaw rek kon kenn ku nekk ba boo séentoo ba gis ni sa lii mooy nga war a mooy sa bisu tabaski juróom-ñeenteelu fan ba te juróom-ñeenteelu fan mooy sa bisu arafa
mu ne ndax loolu lu wér la wala kuy tiit di wax la rek alhamdulilah xam naa oustaz Sobel la mu waxee dafa daf caa juum warul woon a wax na bisu arafa ndax arafa moom benn bis la mooy bis ba nit ñi taxawee arafa ndax ku la wax na bis boobee du arafa li muy fii mooy ujaaj yooyee daja màkk ak fu ñu mën a jógee ci àdduna moom ajuñu ndax bis bañ taxaw arafa du arafa su fekkee ne dangaa wax ne bis boobu du bisu arafa kon bis ba bisu arafa la moom kay li mu waroon a wax mooy sama weeru bopp wala sun weeru bopp ginnaaw nit ñi dañoo am ay weer yu bokkut mu ne sun weer bu fekkee ne da nga yow ñi bis bi mooy juróom-ñeenteel bi loolu la waroon a wax yoon ci waaye waru ci woon tudd arafa arafa moom benn bis ba ci at mi mooy bis ba nit ñi di daje Makka di fa taxaw naam jërëjëf Cheikhana waffaqakumullah cheikh bi kii nee na ñoom ci quartier Comico xam naa Dakar la mu ni daanan faral bisu arafa ñu organiser ay ndogu ci jàkk ja am ku leen ni waaw ni ngeen koy organiser moom année bi den ni ba du dugg ci bidaa mun nag dafay laaj ndax loolu lii dugg ci bidaa la wala dañ koy jàppee rek ñu organiser ndogu ci bisu arafa xam na ni bisu arafa at bu jot day am wala daal nu ñuy def alhamdulilah organisation ndogu boobu yi ma wax di damaa xamul nuñ koy defee ndax dañ caa boole lu ci bokkul wala ndax tey nit ñu jekki ba waxtu wa jot la ñu indi seeni ndogu ci béréb ba nit ñuy daje mën naa doon ci jàkka ji mën naa doon ci bitti jàkka ji ci dëkk bi wala sax ci kër wala fu mën a doon su fekkee indi say ndogu daal la teg woo nit ñi ñu ñëw doge ko loolu moom xaw ma fu mën a doon bi daa ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo santaane ñu dogal ku woor wax ne képp koo xam ne dangaa dogal ku woor am nga tuyaaba ji toll ne tuyaaba ji nga xam ne mooy tuyaaba yi ka woor su fekkee dangaa woor nag boole ca kon am nga yaari koor ci benn bis kon loolu tawfiq la boo xam ne ju rëy rëy la ci mat a fàggu la tànn bisu arafa wala bisu asura wala bisub taasuwa wala bisub altine wala bisub alxames nga xam ne julli bi bari dañ koy woor booy dem si jàkk ji nga yóbbaale loo xam ne ëpp na la ngay doge di ko dogaale ci aw nit loolu day sopp nañ ko lu baax a baax a baax la loo xam ne sore na ak di doon di baax ah su fekkee dañ ko organisé nag dugal ci leneen lu bokkut ak loola nag di joxe ay dogal ko def ay yëf yi faa nag yëkkati ay baax ak yëf yi faan yoo xam ne nag yu bokkul la comme niñ ko xamee ni léeg-léeg nit ñi ne dañuy dundal laylatul xadar nag boole ci yu bokkul su fekkee lu mel noonu moom loolu dañuy wax ne lii day sunna la woon waaye dañu si dugal loo xam ne bidaa la waaye su fekkee ne dañoo yem sa sunna sa rek kenn mun leen a yedd ci loola wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana wa jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na xar yi yan mooy xar yi nga xam ni mën nañ koo tabaskee mucc na ci ayib yu mën a tabaskee ak yan mooy yi nga xam ni kenn mënu koo tabaskee am yan ay ayib yoo xam ni daal ku ko gis ci sa xarum tabaski du dagan nga tabaskee ko alhamdulilah cheikh abdullah xam naa borom laaj bi sax xar yi la laaj ndax xar moom jombul mooy li gën a siiw ci li ñuy tabaskee ci suñu réew mi waaye ñu xam ne bu dee sharia moom li ñuy tabaski mooy bahimatul an'am bahimatul an'am nag buñ ko waxee mooy nag ak gëléem ak xar ak béy muy wu góor wa muy wu jigéen wa wu góor wa nag lañ gën a sopp waaye lépp a dagan amma nag ayib yi nga xam ne bu gaaree tabaski ma duut ñu ca mën a tabaski loolu yonent la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na ko ba ci jëkk nee na al awra al bayinu awaruha bi nga xam ne daa pat ba pat ba fis nga xam ne bu dee bët bi dafa yàqu ba fël génn ci bitti boo ko gisee mu mel ne luy bëgg a lang booba fis na bu dee daa nuur ca biir it ba ne meŋ boo ko gisee xam ne fii bët nekkatu ko booba fatt fes na waaye bu fesul bi nag mooy boo xam ne boo ko gisee ñaari bët yi doo leen mën a xam ne yépp a ngi xoole waaye daal boo yàggee ak moom da nga xam ne benn bi moom leer bët ga dem na kon booba duutu mën a tabaski bu fekkee wér na ne dafa pat pat boo xam ne bu fes la lam ca teg mu ne al arjau l bayinu arajuha yi nga xam ne day soox ba soox ba fis soox bu fis it mooy soo xamee ne bàyyima bi génn na dootu mën a dab moroom ya suñ àndee daal ñu wëtal leen ñii dem day def gannaaw waaye su fekkee ne mi ngi soox tànk bi dëng na ba bu ko ñu xam ne daal laaj gi waaye kenn mënu koo raw suñuy dox muy dox suñuy daw muy daw kooku mën naa tëgg mu teg ci ne wal maridatul bayinu maraduha bi nga xam ne daa feebar ba feebar ba fis ma nga tëdd fa mu tëdd buñ ko joxee lekk du lekk buñ ko joxee naan du naan kooku kenn du ko rendi di ko tabaski mu teg ci ñeenteel ba nag mu ne al ajfaau allati la tunqi mooy bi jeex takk ba nga xam ne yax yi amatul ak yuq mooy gàtt bu yooy bu fekkee ci gàtt la bu dee najit wala ba gileem wala lu mën a doon bu ko loola gaaree mënatu la tabaski yent yooyu mooy yoo xam ne ku ko tabaski moom amoo am tabaski am na nag yeneen ay bi sew sewaan yi ñuy faral di tudd yoo xam ne dañ koo sit waaye yàqulum tabaski ku mel ne béjjén bu dam mag nopp bu xarak nopp bu daggat geen bu daggat yu nuroog yooyu yooyu dañ koo sit am na ci waroom xam-xam yi ñu ci boole bi nga xam ne dafa at te patt ba birut xana bët bi day xoole normal boo ko gisee comme bët bi ci def waaye yow dem nga ba xam ne wóor na leen benn bët yi gisatul su boobaa sib nañ ko wallahu taala alam jërëjëf Cheikhana wafaqakumullah laaj bi mi ngi jóge Côte d'Ivoire ci Bachir Sall nee na moom dafa am ay dëkkandoo yoo xam ne dañuy jullit ñu fekk ñoom jàmm ak lu rafet da leen di faral di tibbal nee na tabaski bi est-ce que dina dagan léegi mu jënd benn xar mu jënd ñaari xar ndax mu sakkan ci moom su ko defee bu rendee ay xaram man leen a may ci yàpp yi wala du dagan ci moom alhamdulilah daanaka laaj bi rek mooy ndax dëkkandoo ji nekkul ci diine lislaam mënees na koo may ci yàpp tabaski waaye jënd gi ñaari xar ak yàpp ak yooyu moom jotul dara ak laaj bi okay yàpp tabaski dañoo wax ne sopp nañ rafetlu nañ yëpp nit ki mu lekk ca ak njabootam waaye su gisee ku muy saax mu saax ko ca mu gisee dëkkandoo ju muy may mu may ko ca dëkkandoo nag dañ ko waxee aljaarul junub ca la bokk mooy dëkkandoo joo xam ne bokku leen diine kooku su ko joxee ca ndawal ko mu lekk ngir ñiinal ko diine ji ak ñemeloo ko ak ñemeloo ko jullit yi dalal xelam ci lislaam loolu la sàkk na ci luy rafet loo njort ku nekkul ci diine lislaam walbatiku rafet njort ci lislaam la loola jombul yàlla mën na ko caa jaarale ba tàbbal ko ci diine ji ndax kenn ku nekk fa la borom bi tabaraka wa taala di jaarale ba du mën a dugg ci diine ji moo tax al muallafatu qulubuhum ñi nga xam ne dañoo yeyoo asaka lenn ci waroom xam-xam yi nee nañ dëgg la kuy door a dugg ci lislaam te yor ak tumuranke moo ci jiitu waaye ci duggagul ci lislaam ñi bëgg ko cee dugal wala ñi bëgg a fekk aw ayam kooku mënees na ko caa jox wallahu taala alam jazakum allahu xayran waffaqakum albaari cheikh bi kii nee na moom dafa am fu mu liyee cent trente mille lay fay par mois borom kër gi ne ko soo ma joxee ñeenti weer yoo dajale dama la koy defal cent mille nga joxe quatre quatre cent mille rek mu ni ndax loolu dina dagan wala déet
alhamdulilah ku lay luyee ngeen waxtaan ba dëppoo ci location bi na muy toll mu wëlbatiku ne la moo ne nag su fekkee da ngay fay fayin wi ci boppam am na noo xam ne boo ko ni defee danaa la wàññil mooy au lieu ngay fay par weer ngay fay par nangami weer soo joxee ñeenti weer su boobaa nekkatul cinq cent mille waaye quatre cent mille lay doon nga defe ko noona loolu moom dara nekku ci xeetu promotion la woo xam ne jaaykat yi danañ ko di def te sharia terewu ko ñu ngi mel ne rek nga duggoon ci tëb boutique jënd mel marchandise muy jar nangam jaaykat bi ne la moo ne moom day boo ci tegoon beneen boo xam ne nangam lay jar am na leneen liñ la ci tegal loo xam ne promotion bi moo ko laaj wala ñu ne la yow fukki kilo nga jënd waaye boo jëndoon fukki kilo ñaar kilo bii doon jar deux cent su boobaa cent cinquante lañ la koy calculal nga jënd loolu loolu dara nekk ci kay jaay rek moom moom marché bi sam di la wàññil moo def ay calcul tamit ba xam am jaayam lan la ci mën a wàññi ak lan lañ ci mënta wàññi wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi laaj bi tamit itali la jógee kii nee na dafa am ku ni ko sa dëñ buy metti jëlal garab nga góox ko deux minutes yàbbi ko mu wér nee na ki ko waxee daf ni ko man essayé naa ko mu baax nee na nag garab daal xeetu sàngara la mu ne ndax dina dagan wala déet
alhamdulilah loolu yi ñu wax garab te ñu wax ne ku ci naan lu takku mën ngaa naan li kon loola ci daal di war atteb sàngara sàngara nag borom bi tabaraka wa taala dafa xaraamal ku ko naan ndax nag mënees na ko fajoo suñ demoon ba xam ne sàngara bii mën naa toog place alcool nit ki yor góom ci tànkam ndax mën nañoo jël wëttéen wa def ci sàngara def ci góom ba ndax mu wow ndax mënees na koo gallaxndikoo ndax bañ bi metti boo noppee daal di yàbbi ba mu sa bëcc ci dara bañu jàll fekk kaabaru faju moo ko tax a jóg loolu borom xam-xam yi am nañ ci ak jiyoo la ko waral nag te lal ko du caagi ni li ñu xaraamal ku naan sàngara moo tax waaye ndax sàngara sobe la wala du sobe ndax day sobe ci maanaa ba noppi nekk sobe ci jëmm wala sob maanaa ma moo sobe wu waaye jëmm ji sobe wu bépp borom xam-xam boo xam ne nee na sobe la kooku xaraamal na nit di ko jël di ko laal ci yaramam wala mu di ko galax di ko di yàbbiwaat ña gis ne nag dafa laab maanaam dafa xaraam waaye teew koo laab ñooñu gis ni ñu mënees na koo galax ni koo faje ko bëñ yàbbi waat te góorgóorlu ba dara bañ a jàll ñi wax ne nag sobe wu wut seeni wax boo gëstoo ba ca biir da ngay gis ne ne dafa mel ne moo gën a dëgër ndax ñene sobe la fañ ko teg itam rigisun jooju borom bi tabaraka wa taala wax rek ca lañ ko yemale rigis nag firiwul daa iman ne lii sobe lay daal di doon soo xam ne soo ko laalee da ngaa war a jóg dem raxasu ji ndax xiram yaa nga ca biir te kenn ko tax xam ne bantu xiram bu ñu samp loola du sobe kon rij sigi liñ ci jublu mooy sobe soo xam ne ca maanaama la maanaam lii lu salte la waaye nekkut loo xam ne lu sobewu la am ci ñoo xam ne dañoo jàpp ne lépp lu xaraam sobe la waaye mbir ma demewul noonu bu dee sobee xis yi lañ ci jublu mën naa sobewu nag ci maanaa waaye du caagi ni lu xaraam lu nekk sobe la ndax borom bi tabaraka wa taala xaraamal na yu bare bari yoo xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ne du sobe soo toppoon xurrimat aleykum ummahatukum balaa yëg jeex dañu gis ne yàlla xaraamal na ci nit ki ndeyam ak doomam ak yooyu yëpp te taxul ñooñu doon ñoo xam ne dañoo sobewu kon xaraam ak sobewu bokkul dëgg la lu sobewu lu nekk dafa xaraam waaye nag du caagi ne lu xaraam lu nekk dafa sobewu kon daal la ñuy jàpp mooy su fekkee ni lii muy laaj gis nañ ne góor na ne am na njariñ bëñ bi metti mën na koo faj su ko jëlee góox ko yàbbiwaat ko bëñ ba wér su boobaa loola la ñuy jàpp ne dara du ca nekk na góorgóorlu ba dara bañ a jaaroo rek والله تعالى أعلم جزاكم الله خيرا وفقكم الله cheikh bi kii mi ngi tudd Omar Seck nee na nag ngeen gis na xam alxaaj Omar Seck di wootee ca Italie nee na dafa am ñoo xam ne neen duñ sax ay góor jigéen waaye dañuy bëgg changer seen awra bu dee góor ñu changer seen awra bu dee jigéen ñu changer seen awra mu ne ñooñu ku ca tuub ba nekk jullit loolu lay jàpp góor lan lay jàpp wala jigéen su fekkee ni góor goo xam ne dafa changer woon awraam su tuubee góor lan koy jàpp wala jigéen su faatoo encore nun koy atte góor wala jigéen alhamdulilah waaw wax na dëgg buntu réer moom dafa yëmut fenn on dëgg noonu ni mu ko waxe am na ñoo xam ne yàlla da leen di bind ñu doon ay góor ñu fas yéene wane ne am nañ liberté soppi seen bind maanaam ñoo moom seen bopp di def ay pexe di jëfante ak ay docteur ak i fajkat fab ay hormone di ko dugal ci seen yaram ba mu yàgg seen bind forme ba soppi ku ñu nuroog bindu jigéen su ko defee seenu dënn am ay ween seeni kawar ñu soppi ko seeni xar kanam maquillage yi ñuy jëfandikoo yi ñuy def yëpp seen yi ñuy solo lépp boo ko gisee ci bitti bu la rombee da nga naan jigéen a la romb am ñoo xam ne nag jégg nañ foofa dem ba àgg ci seen awra ñu opéré ko soppi ko bam nuroog awra yi jigéen safaan ba it am ca wet ga ca des ñoo xam ne dañ leen a bindoon ñu doon jigéen liberté boobu yi ñu jox su ne foofu la nekk tax ñu dem ba def seen bopp noo xam ne boo leen gisee góor nga leen di teg bakkaar bu rëy la bu jéggi dayo la ak suufe la ak dellu gannaaw la ak nit jóge ci ak nite la di jëm ci leneen waaye nag ñu xam ne loolee su ko nit ki su ca jaaree ba noppi walbatiku yàlla baaxee ko nag mu tuub ñëw ci diine lislaam walbatiku tuub fas yéenee dund diineem nga xam ne su faatoo ca loola it na ko yàlla bindee woon moom dara soppikuwut ginnaaw xam nañ ne kii ba ko yàlla bindee mu génne ko ci biiru yaay mu ne cëpp fii ci àdduna góor la woon kooku góor rek lay mën a doon mënta doon leneen ndax yooyu ñu soppi mukk yooyu ñu soppi lu mu bari bari du dem mukk bañ ne kat moom kat ndaw si léegi mi ngi gis reegal dem ba mu yàgg ji ne ah moom kat léegi ñu nga ëmb ka nàmpal déedéet loola du ko def kon góor gam doonoon rek moom la doon jigéen ji yëpp du dem bu mu yàgg mukk ñu ne mi ngi ëmbal yeneen jigéen ak luñ ko nuróol nuróolee góor buñ demoon ba monteel ko ay sikki mag ay yëf yi fan yooyu mu jaxasoo ci nit ñi ñu naan waajaa nga ne duñ dem mukk ba ne tey jii moom mooy ngénte doom joo xam ne moo ko jur kon xamal ne dañ doon jéema soppi bindu yàlla waaye kenn ku ci nekk na la yàlla binde woon noo soppiku wut lii nit ñi gis ci seeni bët loola moo soppiku waaye bind ba moom dara soppiku ci lam doonoon la doon bu dee góor buñ koy miraas nañu miraase góor lañ koy miraase cër góor lay jël bu dee jigéen itam noona wallahu taala alam baarakallahu fiikum cheikhana jazakum allahu xayran cheikh bi kii daal nee na moom dafa bëgg nga dimbali ko rek xamal ko lu tuuti rek ci musaylimatul kazzab mooy kan daal ak ci lu mu nekkoon alhamdulillah musaylimatul kazzab day yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tudde alkazzab alkazzab nag mooy ëpp fenaakoon ngi tudd musaylama ibnu sumama alxanafi am ñu ne musaylama ibnu xabib waaye li wér mooy ibnu sumama ibnu xabib la xabib maamam la waaye du baayam alxanafi mu bokk ci banu xanifa dëkk ca fa ñuy wax alyamaama juddoo ci as ndëkk su nekkoon foofee ca yamaama ñu koy wax aljubayla dëkk boobee mi ngi fi ba tey foofu la juddoo woon doon tam am mag nag ndax mag na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu bari daana woote woo it ay yëf ñenn ñu nee na ñoon ak yonent la doon woote woo ñeneen ñi ci des deneen da doon woote woo yeneen yoo xam ne xeeti ay xamkat ak yu nuróog yooyu la waaye nag ba mu déggee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ na ca màkk gàddaayi ko dem madina nit ñi di gàddaay di ko fekkee fekki madina ba am ay nit ñu gàddaay ca alyamaama muy ca najd ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci diine lislaam ca la yéenee nag déclaré la nga xam ne moom la doon nës nësal daal di yëgle ne moom ab yonent la am ñu fa jóge di dem mu bindub leetar jox leen من مسيلمة بن حبيب ولا مسيلمة بن ثمامة الحنفي إلى محمد رسول الله noonu la tàmbalee leetal ma ne ko dama bëgg nu séddoo yëf yi séddoo suufi ami frontière am loo xam ne foofa ngay yem am loo xam ne foofu laa yem ndax nun ñaar ñëpp ay yonent lañ maanaam suuf si daal nañ ko séddoo bëggatuma ay nit di jóge fii ci nit di ñëw ci yow ci gàttal loolu la bëgg a wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leetar ba mu ko bind da ko tàmbalee ci min muhammadin rasulillah ila musaylamat alkadab kon leetar ba foofa la tàmbalee ne ko leetar bii mi ngi jóge ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi yonent bi yàlla jëm ci musaylama mi nga xam ne ab fenaakon la ak xisaab yu gudd luy bari ay yëf daara def bu déggee ne aw saar wàcc na muy jéem a wàcce aw saar wu xawoon roogu woowa di ko dendali ci ay anam yoo xam ne yu reelu la ñàkkul nag ñu ko gëmoon topp ko moom itam ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna bàyyi ko fi bi xilaaf ak Abu Bakar as-Siddiq radiallahu taala anhu dikkee mu gën a yëkkati nag ay géejjinam nag doon déclaré mbiram moom Musaylima nag jàpp ne ginnaaw yonente ba dem na léegi moo fi sës daganteeg lenn ci giiri arab yi ci kaw gi muy al arab commencé di tubbi ñenn ñi tubbi wut ci daal di wax ne asaka tuuti ñu ko jox Abu Bakar ndax yonente bi moo ko yeewoo wam te jóge na fi ci biir loolu nag la Abu Bakar as-Siddiq radiallahu taala anhu feeñale nag ak njàmbaar goo xam ne bu dëgër la mooy fas yéene aar nag diine ji wut ñetti armée yoo xam ne benn bu ci ne dafa am kuréel bu mu ko jagleel benn bi mooy ñi nga xam ne dañ ne duutuñ joxe asaka ba Omar ibn Khattab sax radiallahu taala anhu xawoon am foofu gàtt ba ne ñi kat ay jullit lañ ndax dañoo nag wut a joxe asaka rek ndax jaadu na ñuy xeexe ñoom mu ne ko nag ku tàqale diggante julli ak asaka dinaa la xeex ba keroog ngay del siwaat Omar nee na sama xel door del siwaat beneen armée bu mu yebalal ko ñi nga xam ne dañoo tubbi wane ni ñoom génn nañ diine lislaam beneen bi nag mu jagleel ko ñi nga xam ne dañoo woote ne ñoom ay yonent lañ faf kon foofa la jële Xaalid ibn al-Walid nag ak armée ba mu àndal ne ko yow moom kenn gënu laa yey ci al-Yamaama maanaam Musaylima moom yaa war a dajeeg moom Xaalid jël jaysh boo xam ne sànnikati fett yëgg nañ ñëw ñu ngi ci biir mu jiite leen ak bi yamaama xeex ba tàmbali mbooloo mu bari dee ca ñooñu nga xam ne ñooy yéefar yi àndoon ak Musaylima al-Wahshi ibn Harb di jàmbaari sànnikat yoo xam ne kenn fàttewut ak ñawam ci xeex ak gravité moo dem ba jekku ko rek sànni ko genn fett Musaylimatul Kazzaab dal di daanu kala Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu waxe ne al-Wahshi day xamuñu nu koy def ndax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gënoon a bëgg ci ay jamonoom day ci saxaaba yi muy Hamza ibn Abdul Muttalib al-Wahshi nii moo ko reyoon yéen duggagul ci lislaam faf mu dugg ci lislaam ki yonente bi gënoon a bañ ci adduna muy Musaylimatu kaddaab mu wëlbati ko reyaat ko radiyallahu taala anhu wa anhum ajmain kooku kon lenn la rek ci ay junj ci Musaylimatul Kazzab moom nga xam ne dund na doon ab yéefar faatuwaale kéefaram bokk ci waa sawara wala yaasu billah naam jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na moom day baayam la nekkaloon baayam sëriñu daara la bi mu jàngee foofu it baay bi yabal ko mu dem war a yokki àlliwoom bi mu jàngee nag la gis wax dëgg yàlla parce que su sunna bu leer naan ñi mu nekk ca te fas yéene yéen a sax sax ñun ñu gisewaatee tamit baay bi jox ko daara ji yépp waaye daal baay bi nee na baay bi mayu ko dara da koy bundoxataal guddeeg bëccëg da koy sax toroxal sax ci kanamu élèves yeeg ñëpp ngir rek sunna si ñuy dund du ak yaradi ko ci moom du dara bu koy wax sax du ko tontu mais nee na daal bis bu nekk du ko ci may dara mu ni ndax dagan na nag mu jógee ca daara ja dem jàngale ji feneen ndax mu mën fa am jàmm te du dund fa diineem alhamdulilah ndaw loolu yi nga xam ne baayam moo ko doon taxaw ak di ko ebal mu dem di jàngi alquran al karim ba teg ca lam ci jàng ci xam-xam ba suñu borom tabaraka wa taala baaxe ko ci ni mu ko waxee nee na mu gis sunna te gis sunna mooy fas yéene topp siraatul mustaqim muy téere bi yàlla bi ak njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kooka lañ koy dénk de mooy na sant waajuram woow yi te di ko ñaanal bu baax a baax te jéem a muñ jëpp lor joo xam ne dana ñëw ci kawam te jóge ci baayam te fekk diini jooju mu ko waral bu mu soppi dara ca la war ci digganteem ak baayam ci jikko yu rafet ak ub lewet ak ub nooy ci digganteem ak waajuram ba noppi nag continue ci diineem nag na ko ko lislaam sante loolu rek la ñu dénk ndaw loolu waaye waajur wo nag la ñu koy dénk moom it mooy na teey lu nag te def ndànk doom nga yor joo xam ne danga koo dugal ci alquran al karim mu jàng ko dolli ko ca xam-xam ba yàlla baaxe ko ya nekkoon ci pas-pasam ci diineem ci aw doxalin yoo xam ne du noona yëpp mu di ko jéem a jubbanti jaare ko ci alquran jooj nii nga ko doon jàngaloo boole ko ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom la alquran wàccoon ci moom kon su doom jooj yi bul réere mbir ci ne da nga cee war a sant sa boroom tabaraka wa taala moom mi rek ko doomale manoon ngaa toog soxla doom doo ko am mutlaqan manoon ngaa am doom na gani tey muy fanaan ca baar ya mënoon nga am doom muy taxawaal yàlla jox la doom mu jàng alxuraan wala di ko di ko jéem a jëfe yëgal ne ñu bari day suñu amoon doom bi mel ne jooju nga am dañu lay ñëwee kon nag yow la la war rek mooy sante ko yàlla te lépp lu la nit mën a wax naan la sa doom ji daa sedd jiw la def nangam dafay bàyyi nangam ñu ngi ci fekkoon loola bul ci am soxla bul ca am soxla ñi la koy wax benn kuréel la koo xam ne dafa xamut li muy wax wala mu doon koo xam ne dalaa iñaane ca biir te mënu koo wax ca kaw muy xool fu mu ko jaare rek di ko jaarale ci wax yi mel noonu waaye loola moom bul ko geesu bul ca am soxla wallahu taala alam waffaqakum albaari baraka allahu fiikum cheikhana cheikh bi kii nee na dafa am ay oto ay biis sax la wax yoo xam ne mën nañ koo indi mu dugg Sénégal mais nee na dafay am lu ëpp huit ans xaw ma dix ans mais ñoom am nañ kii boo xam ne mën nañ koo def ba ba mën cee dugg daal xam naa ne dañuy jéem waañ at yi wala yu demee noonu wala ci kayit yi mu ne ndax bokk ci genre réseau yooyu dina dagan wala déet ak di ci liggéey alhamdulilah wax na dëgg oto yi nga xam ne dañoo âgé dañuy tere ñu dugal leen ci sunu réew mi te loolu it ay xalaat te yoo xam ne yu mënee sa dégg la ndax mëneesul oto bu dem ba doon mbalite ca def rek ñu boob ko indil ñu ko fii ci Afrique suñ jaww di yàqu suñ agaroon naa dara tuuti ci baax suñu garab bi dee nit ñi di feebar loola moom décision la boo xam ne bu mënee sa dégg la la ca des mooy jullit bi li ko sharia di sant mooy lépp loo xam ne li ñu tudde false la wala trafic muy xeeti jalgati yoo xam ne yu am la ci loo xam ne luwaa da koy santaane nga di ca sàkk ay pexe wala nga di ca dugal ay njublang loola lislaam da koy tere ab jullit la ko waral mooy yaari yëf la mooy ñaare yu mel noonu buñ koy tere moo xam dafa aju ci wàllu ay marchandise yi nga xam ne lii fraude la wala dafa aju ci ay matériel yu ñuy yi bu ñu ko dugal ci réew mi fekk na ay calcul la yu ay boroomi xam-xam yu xóot seen xam-xam def ba gis ne lii lor la ci askan wi kooku mooy dugg ci li ñu tudde baabul masaalix wal mafaasid su boobaa suñ ci jële décision jaaduwul ab jullit di xotti war ma joojee war ma joojee beneen ba ca des mooy képp koo xam ne tàmm naa def li ñu tudde fals soo jàppoon ne bunt bii bunt bu weex la sax warees na cee mën a fals wala warees na ci mën a def trafic wala yu mel noonu ka ko tàmm doy ca tuutul yem day continuer bu yàggee ba watut ab liggéeyam lay mujj doon loolu moo tax jullit bi lu jubut moom amul lu ndaw ak lu mag ak lu mel ni moo tax bàkkaar bu ndaw dañ lay wax ne boo ko tuubul bu yàggee bàkkaar bu mag la ñu soppiku kon mu ngoog naam sa abdallah jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi soxna si nee na moom day jullit la ma ko nekk waaye nag xëy na seytaane mënoon na ko ba mu xëyëg ak yéeféer boo xam ni di jullit nekku sax ci benn ci diine yi am na ñu doom def nañ ay ati at mais nee na nag bi mu dogoo ci dundu diineem ci ni ko alquran teraaseeg sunna nee na wax na teeg borom këram mu mel ne daal dafa jàpp da koy wor wala yu demee noonu te moom diineem da koo gënal lu nekk nee na naka lay def lan nga koy digal pour mu mën cee taxaw.
alhamdulilah bu naaw diineem da koo gënal lu nekk naka lay def du weesu rek tuub bokk na ci masala yi nga xam ne dana di xew ci sunu réew yi mooy ay jigéen ñuy jël seen bopp di ko jox ay yéefar di wane ne seeni bopp seeni jëkkër lañu te loolu lislaam xaraamal ko mu doon xaraam gu set rëcc te leer xane amut laam-laamee ñi nga xam ne dañoo nekk ci diine sax ci wax ne cosaanam mooy diine ju wér la masoon a doon muy diine ahlul kitaab ñooñu sax may ñu jullit bi seeni góor di takk jigéen joo xam ne ak jullit la waxuma la nag ab yéefar boo xam ne moom kéefaram àgg na ci gëmul dara ci ni mu ko waxee lañ def yoomte la loo xam ne lu jéggi dayo la tuub ga nag mooy rectifier ko dellu ca gannaaw sëy boobee ñu façon dub sëy continuer ci it continuer ci leneen la loo xam ne dub sëy maanaam ci tuubu chariatul islam sëy boobee wérut maanaam buñ ko takkee it islam dafay digee digle ne nañ ko firi fa saasa suñ ko firiwut fa saasa ba ay doom juddu ca it xëy na mën nañ leen a bañ a tudde ay doomi njaaloo ginnaaw sëyub lënta nga fa waaye sëy ba moom fu mu toll fu ne lislaam a ngi taxaw naan firi leen ko firi leen ko firi leen ko naam جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا ووفقكم الله لما فيه الخير والصلاح شيخ يالنا يالا سام لا سام سني ورام خم خم ci aduna bi yépp dafal ñu ñu dégg ak topp ci tontu yu leer yi nga xam ni moom lañ jëriñoo tey te yàgg koo jëriñoo ci émission yi jazakumullahu xayran wa barakallahu fikum Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ca Mbour Tivaouane Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité
jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp vingt deux heures ngeen ci ànd ak al oustaz abdallah baba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine
عزمات يميني لو عندي عمر ليكفيني نشرت تعالي